ahousubillah bisimillah inna waliyallahu bisimillah macha allahu la xawla wala quwata illa billah yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madad ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi salaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi sunu yaakaar tey ëllëg muy Seydina mu karamu mbokki téléspectateur Makhama TV rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen euh, internet bi ci seen Makhama TV noo ngi leen di nuyu tey di leen beral ak nuyu ci weeru kooru seetlu wi tey nekk sunu ñetteel bi numéro ci sunu jotaayu Ramadan ñu fas yéene amal comme thème tarbiya fas yéene cee ànd ak euh, benn jëwrin ci xidmatul xaddim muy daara bi nga xam ne mooy fédération Serigne Aïdara Mbacke ñu fas yéene cee ànd euh, jëwrin Xalil Mbaye mu féetewoo ba Touba Tëngéej nekk fa kenn koo xam ne ci sampi sëriñ bi la ci gox googu noonu ànd faak ay murit di liggéeyal sëriñ bi ñu fas yéene waxtaan ak yéen comme niñ ko waxee léegi ak tarbiya amaana ngir bañ a dañuy jox sëriñ Xalil Mbaay mu jotal ay kàddu bu noppee ñuy soog a dugg ci sunuy laaj. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom Touba barke Cheikh Sidna Alin Mbàkke mu karamu ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax sëriñ bi di leen sant yéen it ci jotaay bi leen wax it am na solo lool di ñaan it lépp luñ ci def rek mu doon ay yiw te saa borom sotti ko ci àdduna bi yëpp te mu jariñ ñëpp bi jaay seex seen naa leen mbàkke mu karam macha allah jëwrin xalil kàddu yi am na solo kon bu ko defee ngir bañ guddal dañuy dugg ci sunu laaj bi njëkk comme tarbiya la ñuy waxtaanee balaa noo jàll fenn laaj bi ñuy njëkkee laaj moom mooy lan mooy tarbiya. Ah, macha allah laaj bi am na solo lool jëwrin bàmba lan mooy tarbiya di wax ni kat ñun moom. suñu buntu ci tarbiya mooy Cheikh Ibrahima Fall Babil Mourideen moom it mu fesal ci liggéey bu am solo wone ko te képp koo xam ne nii rek yaa ngi sóobu ci yoonu tarbiya Cheikh Fall rek nga ciy roy kon tarbiya du leen la dul sàkku yàlla ak xam noo koy sàkkoo am na ñoo xam ne nii nag xëy na ñu ngi def jëfandikoo loo xam ne nii ñu ngi koy tuddee ab tarbiya fekk na du ko waaye tarbiya daal liñ ci mën a wax mooy kuy sàkku yàlla jéem a xool ci ki mu yaakaar ni moo ko mën a yeggale ca yàlla mu jox ko boppam boo ko joxee sa bopp nag day dagan ci yow lépp lum la digal nga def ko lépp lam la tere nga bàyyi ko loolu daal mooy bunt tarbiya bu ko defee non daal boo ci jaaree te koo wàcc fépp fa ca mag ña yeggoon mun nga caa yegg loolu daal mooy bunt bi moom macha allah jëwrin Xalil mm, kàddu yi am na solo te tontu bi matale na kon bu ko defee dañuy jàll ci sunu ñaareel bi laaj maanaam ñuy laaj ñi nga xam ne maanaam ñoom dañuy tux ak a naan ñuy faral di leen di gis ñuy wootewoo ak Baay Faal ñuy laaj ba xam loolu moom bokk na ci ak tarbiya wala bokkul ci ak tarbiya maanaam tux ak naan maanaam ba xam bokk na ci yoonu tarbiya wala bokkul ci ak tarbiya. macha allah jëwriñ Bamba laaj bi am na solo lool di wax ni tux ak naan moom loolu bokkul ci tarbiya loolu jëfi nit ki Mm, tarbiya nit bu bàyyee léppam ñëw ci daara ji di sàkkub tarbiya ci moom di ko sàkkub ci seexum tarbiya bi lim lay digal du lenn lu dul jaamu yàlla sax si ndigal te dawi tere te dawi tere yooyu nag yooyu da cee bokk nga xam ni kon Baay Faal bi moom du mën a ñàkk ci moom muy dawi tere waaye du mën a ñàkk ci moom it muy jëfee ndigal moom ci lu bari nag loo xam ne nit ñi ñoo ko ci boole waaye bokk ci lu mel ni tox dañ ko cee boole lu mel ni naan dañ ko cee boole lu mel ni leen ak leen dañ ko cee boole rek waaye bokk ci Baay Faal du ko def Baay Faal lu set wicc la Baay Faal mooy kuy sàkku yàlla te xam ni mu koy sàkkoo te di ci def yitte bu ko defee yooyu moom ay bakkan la yoo xam ne nii rek moom nit ki képp koo xam ne bakkan yooyu taqoo nga ak moom da ngay fexe rek noo tàqalikook moom waaye bokk ci bokk ci tarbiya daal moom mooy kuy sàkku yàlla te képp kuy sàkku yàlla ku ne moom yooyu bakkan dangaa war a fexe mu denc yow waaye bu dee bakkan yooyu mi ngi taqoog yow day mel ni pareegoo yow ngir sàkku ji yàlla. macha allah sëñ Khalil kon bu ko defee foofu dañ fay dugalaat ak laaj bu gàtt rek ñuy laaj ndax Baye Fall moom mën naa nekk biir kër sëriñam di jaayante ba noppi te du jaar ci yoonu tarbiya ba xam loolu mën naa am wala mënta am. waaw ñun de ci liñ ci xam mooy ñun bi ñu ñëwee sëriñ bi dañoo yóbbu ca daara ja foofu daal la ñuy awale ci tarbiya ca daara ja lañu yóbbu kon li ma ci mën a wax mooy ki nekk ci daara ci sëriñ bi nag moom ginnaaw ci moom la ñuy sàkkoob tarbiya moom mooy xool ba xam dalay yóbbu ci daara ja tarbiya la wala ba xam dalay bàyyi ci kër gi tarbiya la ndax dañu ne sëriñ bu mat sëriñ mun naa tarbiya ci façon bu ne mun na laa yóbbu ci daara ja tarbiya la ba li mu bëgg ci yow mu am ko mun na laa teg ci wetamit tarbiya la ba li mu bëgg ci yow mu am ko wax dëgg yàlla bu soobee sëñ bi daal mun na laa yóbbu ci daara ja tarbiya la fa bu su bu ko soobee it mun na laa bàyyi ci kër gi tarbiya la fa loolu daal moom mooy ci biir ëtt yi ba noppi waaw ba tey ba tey ab bayfal daal mun naa ne ci daara ji sàkkoo fa ngërëmal yàlla ba am ko ah loolu dax dëgg yàlla moom yéeme na dana yéeme lool de dana yéeme lool ndax sunu borom moom ab topp moo ci jëm dangay nangoo topp ndigal yi nangoo bàyyi tere yi ndax dañuy faral di dégg ci benn waxtaan bi Sëriñ dara Mbàkke di wax ñu ñaanal ko mu yàgg fi loolu te wér ngi wax naan yàlla ku bëgg ci moom dara faw mu jaral la dara faw ñu nangoo see ci jëmmi yàlla buñ bëggee am yàlla waaye fi lekk ñu ngi dundal yeneen i bakkan ci suñu jëmm wëlbatiku ne dañuy sàkku yàlla ah du mën a ne ndax balaa ngay ne naam danga cey ne loolu daal moom moo ci suñu suñu suñu tontu wax dëgg yàlla. macha allah jëwrin Xalil kon bu ko defee dañuy eh, jàll ci ñetteel bi laaj ñuy laaj ndax tarbiya moom dina yàq doomu jàmbur wala tarbiya day defar doomu jàmbur ndax gannaaw nit ki moom dafa bàyyi woon kër ndayam ak baayam ñëw di nekk kër beneen keneen koo xam ne mën nañ ko tuddee ndey ak bàyyi keneen di fa sàkku waaw ndax kooku ci biir kër googu noonu da ko war a defar wala kër googu da ko war a yàq. macha allah jëwriñ Bamba laaj bi am na solo lool waaye di wax ni tarbiya moom mënut ta yàq nit xanaa kay nit mooy yàqoo feneen sëriñ bi indi ko ci daara ji di ko tarbiya ngir defar ko loolu damay jël exemple ci man mii toog. ndax bi may nekk ca kër ga dama doon jëfandikoo lu ñu tuddee yàmba dama doon jëfandikoo sàngara dama doon jëfandikoo lu ne waaye bi ma sëriñ bi bëggee dimbali dama jële ci kër gi indi ma ci daara ji ngir ma tarbiyo tarbiyo googu nag moo ma dimbali ba yooyu yëpp denc man kon daara day defar waaye daara du yàq daara kat day fekk ku yàqu mu jël la fat defar ñu bari nag xëy na dañoo réere daara walla yi ñuy gis ci jamono ñu tuddee ko daara moodul daara ndax daara moom bërëb la boo xam ne nii bërëbu bërëbu jaamukaayu yàlla la bërëbu sàkku yàlla la nga xam ni sëriñ bi nga xam ni moom nga topp moom sëriñ bi lim lay digal ci jaamu yàlla lim lay tere ci lii mooy yàlla boo ko jëfandikoo ni ko sëriñ bu waxee da ngay sori yàqu te yàqute boo munti indi ci daara yit fileeg yaa ngi jëfee ndigal di bàyyi tere yàgg-yàgg danga mel ni nga war a mel te dinga mel it ni yàlla bëgg nga mel ko macha allah jëwrin xalil am na solo lool kon bu ko defee it ngir bañ a guddal ba léegi dañuy jàll ci sunu ñeenteel bi laaj ñuy laaj lan mooy xaaya tarbiya maanaam objectif wala rôle tarbiya lan moo ko sabab. waaw mooy bëgg lu baax rek te di ko sàkku ndax nit ki tamit euh, waroo soobu ci dara te xamoo ko bëgg lu baax ak di ko sàkku saa su nekk yaakaar naa ne moo waral nit di tarbiyu ndax nit ki. buy tarbiya rek day tekk ni am na lu mu bëgg. bëgg nag mooy ku ko yeggale ci yàlla bëgg-bëgg bëgg moom nag faaw mu nekk ci yow du mën a ñàkk bu ko sëriñ bi namoon ci yow sax te bëggoo ko ci sa jëmm dana jafe ndeyam ko sëriñ bi lu mu bëgg mu am waaye damay njort ni rek man ni tarbiya moom nameel gi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy sàkku yàlla macha allah jëwrin Xalil kon day mel ni daanaka moom li amoon ci ay laaj day mel ni moom fii la yem ñuy xam ne ne lii moo nekkoon sunu ñetteel bi jotaay jotaayu Ramadan ñu ci doon waxtaanee tey thème bi di nekkoon ak tarbiya ñu ci doon ànd ak uh, jëwrin Xalil Mbaye mu féetewoo ba Touba ta ànd fa ak ay murit ci ndigaluk Serigne ay dara Mbàkke kon bu ko defee dañ koy jox kàddu mujj bu ko defee mu tàggatoo ak uh, mboolem téléspectateur Makhama TV. Ah, fu ñuy daanalee suñu kàddu nag mooy sant sëriñ bi bu baax a baax baax baax baax ndax ñun amuñu fayam saa bu ñu xëyee daal luy suñu yitte mooy lépp lu neex sëriñ bi ñu fas yéene cee xëy fas yéene cee gont lépp loo xam ne ni daal loo lii tax ñu xeeb ab murit la mbaa lii tax ñuy xeeb ab Baay Faal fas yéene wuñ fa teg suñu tànk sagal sëriñ bi moo fi des cib liggéey ginnaaw ba ñu sëriñ bi sagalee ndax ku fekk fu dara newul mu def fa dara yow boo dee gor war ngaa fexe ba saasu ne nga koy sagal sagal sëñ bi nag mooy nit ki xool bu baax la mu wax la muy wax la muy jëf fa dem fa muy toog loolu daal buñ ko defee te mu méngoog ndigalub sëriñ bi lépp lu sëriñ bi bëgg suñ jëm yi dana ànd kon ñu ngi leen di santaat bu baax a baax a baax a baax baax baax ci émission bi te di ñaanit lépp lu ciy yiw yàlla na ko saa borom sotti ci ci umma islamique bi yëpp bu jaay Cheikh Seydina Alioune Mbacke mu karamu gaynde waaw kay macha allah sëñ Khalil jërëjëfati kon lii moo nekkoon comme niñ ko waxee sànq rek troisième émission wu jotaayu Ramadan kon ñu fas yéene yamale fii nii kàddu yi ba beneen yoon ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro ak beneen thème incha allahu salaamaaleykum wa rahmatullah